Mari mari mari di fàttali sama bopp di fàttali mbooleem bopp taal bi yëpp yoo xam ne bisu tey bi moom bisu mbégte la ci bisu naqar ñi fi jaay bu mu tàkkee def ko naqar ndax àdduna moom mbokk yi ñoo ànd ku ci ne rek ak sa yënguwaay ak sa tolluwaay moom rek ngay doxee waaye dañuy war santal yàlla ci bu baax ci xëy na moom nag ku bëggee ko amee woon noonu mën naa di wax waaye suñu borom nag moom mu rek lu gën rek lay def. naa yaakaar ne dañoo ko fii yaakaar naa di delluwaat nga nekkul nekk. yaakaar naa doon ko di leen soxla génn soxla. ndax bisu tey jii moom bisu mbégte la. ñun ñëpp nañu ko leen mbégte rek. bisu mbégte nag moom nañ ci nangoo jaay baax te di ci dundal sunna seen bopp sallallahu alayhi wa sallam te jégalante yi ñu ñu fàttali def ci ñun nga ne sant yàlla nag weesu wu nangoo jàmm yàlla te teg ko ko tere yi bu baax te moytu ci ne ak tooy ak tooy maa ngi déggal sama bopp di dégg loolu booloon ñu doon benn say bañ a bañ a xare seetaane suñu diggante nanu bëggante nanu soppante nanu wërante yàlla rek tax kenn ku nekk jàppee moromam ni boppam ñu bañ a xeebante kenn bañ a jàppal moo gën nga def ko sa borom ndax dañoo wax ne gën moom bi teeg yaa ngi jàpp ne yaa nit na la wër ne kooku moo gën ndax kooku lu mu xeebu xeebu xeebu. sa daal yi man tool yow nga jàpp ne kooku yow la kooku da nga man koo ko lu mën a gën koo jàpp ne yow nag jàpp ne kooku moo la gën. suñu borom subhanahu man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-axira nit ñi ñaari xaaj lañ ñii àdduna moo leen ñor mooy seen ñi ci desit rek moo leen ñor mooy seen bëgg ki nga xamante ni bii nag àdduna rek moo ko ñor suñu borom wax na bëggam koo gi la ko ca mën a fekk. koo jox ndigal dana ndigal rek ci ndigal ci jëf ndigal moo tax a daal daje. ba ko suñu borom ne ko ren de sa doom ndax dem ba nekk mag amoo doom dem ba màggat soo ko am benn doom ay gént rek nga gis ñun la rendi ko nga am pas-pas mën koo daal di jëfandikoo ndigal loolee loolu rëy na loolu. waaye doon nit ñi mu ñi mu ñi mu neexee ci wajur bu jigéen ko wajur bu jigéen ñu koy teg mu ni ko suñu borom nee na sa naa ko rendi mooy mu am xolu nangoo jëfee ndigal loolee ne ko ah defal la su borom ko rek buñ la ko am nga bu ma la ko waaye li ci gën a yéemeet mooy xale bi mu ne suñu borom nee naa la rendi moom it boppam am ndimbalu yàlla daal di nangu ne ko defal la si sama sama ndigal si man di tëdd jël paaka ba teg ca ba ko ci diggante bu gaaw a gaaw a gaaw ndax moom ci diggante kun la nekk ak feekul mel ne kon doomu aadama xam da ngay jëf sugal la ko suñu borom moom daan nekk rek mu daal di nekk diggante boobu la ko nekkalee nag dindi xarma jëndi jëndi di kër defa xar muy mbir mu gaaw a eh. loolu nag képp koo xam ne yaa ngi dundal tabaski comme na nga ko dundalee na lu wóor na yii woo wekk suñu maam Ibrahima amul suñu maam Ismaïla amul na lu wóor na yii woo wekk nga jaay kon li muy xumb xumb di bëri rek rajo lépp nañu xam ne sunna su am solo la te yii wu bëree bëree ci nekk tiyaaba ju bëree bëree ci nekk nañ ko gën a fonk bu baax te ko te gën koy seetal dañuy xoolaat a baax. ak jëm joo xam ne tey lu mu fekk gàllankoor la ko fekk waaye dafa déplacé lu tànk tànk ba egg si fii ku xam njëriñ loolu nu ma toll nag tànk mu indi tuyaab bi ci ne ku xamoon ba tolloo fa dinaa di ko doxal ndax tuyaaba looy am tuyaaba moom xam nga ne yaa ma njëriñ doomu aadama ak yow kon loolu ñu ngi ñaan nga yegg suñu kanam lool te bàyyi la xel ñaan suñu saa bañ a faamu di gàtt yàlla yonent bi la war a te su ko wër ne yonent bi sëñ Tuubaa sama mooy jawriñam mooy jawriñam sa ak sa maam defe naa bu sëñ mos a nekk rek jaaree def fekk foofu kon loolee ci métit jaar bu teggeel ci jëmm sa mag xam nga kon loolu métit la woon kon loolu Mbàkke bu ñu ko jaaree tey bu amee bés bu leen tey nañ ko def fekk nga xam ne noonu du ñu mën a def kon nag itam ma ne waaye du daal ba ilaa yow bi nii ndax lu baax lu baax rek lay wati lu nag moroom ma nay seet kon loolee da suñu xel daal. suñu yaakaar gone dooliku xam ne si Anta bu ma nee demal dooli mi sama jëm bopp nga nekkat ma baari sama jëm bopp kon xam na loolu du asar ba ilaa yow di dañ ko dund ba sa sa taal sax ñu di ko dund kon Mbàkke ñu ngi gën a santaat bu baax a baax a baax a baax a baax ci tànk yi nga xam moom la dox baal naa boo xam ne euh, mbégte ni euh, ñu am tey wannan yi ne na gogon ruwan bayan naku bayan ya futa barbe na goda goda goda goda goda ya bayan rafi wannan yi fi lawa tara zai bayan naku to goyo na godo da ko wannan yi ten ci fas ne dox tanka yi nga xam ne tanka jàmm la tanka tàngal tanka yar tëggi la kon daal foofu laay mën a wàcce sama kàddu ah sëñ Modou fu koy faral di wax rek mi na dem taxaw taxawaay boobee kon Mbàkke taxawaay bii ala kulli xaal ni suñu borom da koy def lépp lu ci am nag nañu xam ne xëy na ay jaar-jaar la waaye ay kiraama mënu ca ñàkk fe kon sa tolluwaay ndax bu fekkoon ne ay gobor wala ay fetel wala ay jaasi eh, bu doon luy lor rek lu leen di lor ba nuy Serigne Touba waxee suuf kon ku Serigne Touba di sa maam kon loolee war taa nekk loo xam ne war te yéen kenn wala mu jaaxal kon mbàkki loolu dañ ci wax alhamdulilahi rabbil alamin kon loolu ak sant yàlla lañ koy def la mucc lu woon boo déggee ñu naan alhamdulilah ñetti muy sëñ Modou Tine wax na ko léegi xar mi nga xam ne moom la ñu euh, Ismaïla mi nga xam ne moom la ñu waroon a def tabaski dafa ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax mucc ba mu mucc Ismaïla la nga xam ne moom moom moo ne alhamdulilahi rabbil alamin xar ma nga xam ne moom lañu mooy mën wut Ismaïla ne alhamdulilahi rabbil alamin waaye malaaka jibril ba nga xam ne moo waroon a wuddale eh, ismaila ak tarmi war teral ko bu yéexoon loolee suñu borom pare itam kon ko itam dañ alhamdulilahi rabbil alamin loola waral ñetti xaaji cant kon cant yooyu nekk na cant yoo xam ne Mbàkke dañu koy def tey ci barab bi nga xam ne moom moo moo fi xew tey muy ay kiraama yoo xam ne la ko sabab warta jaaxal kenn de Mbàkke ah ñun bokk ngem ñun li nga xam ne moom la ñu nàmpal te te joxoñ ñu ci te ñu gis ko suñu bët yi loolu mënuñoo jaar kon Mbàkke loolu dañuy gën a ñaan sa borom guddal sa fan ba li nga xam ne moom la maam Cheikh Anta naal ba teg la ci barab bii nga war na ko ci baari ndox bu ñu waay toll di ko gis tàkk bi nag mooy ceeñaar ba mu nga nali bàyyi ndongo bu doon wax ne ceeñaar bu jolli ci lënd ko dégg man di gër mooy daara jee nga wax ne moom moom moom la ñu war a taxaw daara joojee la koy sabab yaa ngi ci dox guddi yaa ngi ciy dox bëccëg ñi ci sëriñ Saliou mi wax na ko dañoo war a laxasuwaay feddiliwaat kóllëre feddiliwaat laxasaay ndax ñu mën a jàngale xale yi ba dañu bi reer am ngala saytaane wala iblis génn ci réew mi ndax lii lépp pexem iblis bi waaye nag la sëriñ Tuubaa di wax te xasidakum laa tastari dunya bi uxraa yaa fata man baa nuuran fii dunya fa sa yendamu boo jaayee sag leer jënd ko ak lëndëm ba ca boobaa rëccu nga ciy jël kon nañu te dënn sëriñ Tuubaa